asalaamaaleykum ñu ngi nuyu bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni saa su nekk ñooy ànd ak rajo bi di Rewmi FM Dakar 97 point 5 rawatina seen émission sociale toute la ville en parle samedi bu jot 10 heures jàpp 11 heures tey ji seen émission euh, sociale toute la ville en parle fas yéene wax euh, dalal daal di dalal ki nga xamante ni moom mooy docteur Ibrahima Mendy nekk directeur de l'analyse de la prévision et des statistiques agricoles euh, ca ministère de l'agriculture et de l'équipement rural nekk tamit responsable euh, politique ca région bu Ziguinchor ñu fas yéene waxtaane euh, lépp lu soxal coowal suuf jafe-jafe yi nga xamante ni euh, Sénégal am na ko ci wàllum agriculture agriculture naka lañ ko mën a suqale ak lépp tamit lu laal wàllum actualité politique daañu ko waxtaane tey ji ak suñu invité di docteur Ibrahima Mendy ñu lay nuyu di la dalal jàmm Euh, maa ngi lay fay euh, madame Moreau di nuyu auditeur euh, Rewmi FM ak auditrices yi également. voilà di la Sénégal yi yëpp. voilà di la jaajëfal ci disponibilité bi tey jii di ñu wax tuuti ci sa liggéey fi nga xamante ni yow yaa fa jiite. Hmm. ci wàllum prévision ak statistique agricole loolu exactement lan moo ko tax a jóg si lan ngeen di yëngatu. Euh, merci euh, ma joxe occasion ma wax ci sama liggéey direction bi nga xam ne man maa ko jiite mu nekk euh, ministère de l' agriculture mhm. mu nekk direction de l' analyse de la prévision et des statistiques agricole mhm. ñu mu doon direction centrale bu mhm. important bu am solo ci ministère de l' agriculture donc ñun suñu liggéey mooy mission yi d' abord ñun ñooy yëngatu ci mbirum élaboration bindu projet programme yi yu ministère de l' agriculture Euh, di def aussi suivi évaluation yooyu projet xool euh, liggéey bi fu mu toll ci ci réew mi di def évaluation aussi projet yooyu yëpp ensuite euh, ñun ñooy bind politique agricole yi ñooy ñooy coordonné loolu yëpp avec yeneen direction yi avec organisation des producteurs avec partenaires technique et financiers yi pour bind les politiques agricoles euh, bu ñu ko bindee ba pare rek euh, pour mettre en œuvre bi mise en œuvre bi ñun ñoo koy aussi xayma xool politique bi fan la toll. Mhm. Euh, benn pàcc bi mooy ñun ñoo am autorisation. Mhm. collecter données fii ci Sénégal dans le secteur agricole. Mhm. traité ko. et mhm. diffuser ko mhm. donc loolu mooy en suñu suñu liggéey lu ñuy def bëri na mais lu gën a essentiel mooy loolu mhm. voilà tey jii di nga ñëw ci réalisation yi nga xamante ni euh, état wu Sénégal maanaam euh, président Sall bi mu ñëwee 2012 ba tey jii 2020 lu mu def ci wàllu mbay mi waaw loolu boo ma ko laajee je pense que euh, c'est important war ma naa ci mën a tontu euh, ma jël lu ndaw je pense que Euh, bu ñu jëlee mbirum mbéy ceeb bi. Mm-hmm. parce que euh, foofu lay commencer parce que ceeb bi dafa doon euh, loo xam ne lu am solo ci Sénégal. Mm-hmm. donc bu ñu ñëwee en 2012 à peine cinq cent cinq cent mille tonnes amuñu ko. Mm-hmm. on autour de quatre cent et quelques mille tonnes. ñu yóbbu ko ba ay pratiquement un million cent quinze mille tonnes. donc loolu am na solo ça fa plus de cent pour cent cent quarante quatre pour cent. Mhm. Euh, de de de progression la ñu am. Mhm. mais bu ñu jëlee ceeb bi. il faut pas bu ñu xool uniquement euh, niveau de production bi. Mhm. parce que bu ñu jëlee une filière filière dafa bay dafa bay dafa bëri ay maillon lu ñu wax maillon. filière bi yëpp ngay jël. bu ñu jëlee ceeb bi je pense que à part production bi. quand même euh, communication président Macky Sall lu mu gëmoon ni kii loolu war na mën a nekk ci mbir mbéy mi communication buñ ci bu accompagner loolu tax na ba tey. Mhm. Euh, euh, boo demee ci maillot yi nekk ay sénégalais ñu ngi koy mhm. donc quand même lu ñu lu ñu lu ñu jot a def mooy sénégalais yi bëgg boobu ceeb di ko utiliser di ko lekk. mais tey boo demee ci vallée ba. Mhm. am na ñoo xam ne ñu ngi ci production bi ñu ngi gis seen bopp ci biir am na ñoo xam ne ñu ngi ci mayon euh, transformation bi ay rizeries yu bëri yoo nekk ci vallée ba. Mhm. ñu ngi gis seen bopp ci loolu tey boo ñëwee dakaar fii am na ñoo xam ne ay seen cantine lañ yor. Mhm. ceeb waalo vallée la ñuy jaay donc loolu am na solo. Euh, dîner aussi parfois dañu ne dañu ne woon dañuy atteindre autosuffisance. atteindre ñu ko oui atteindre ñu ko mais quand même def nañ ay jéego mhm. def nañ ci ay jéego yu bëri ci mbir mooy mais mais mais lan moo tax Ibrahima ba léegi euh, sénégalais yi consommer locale bi ça pose problème oui je pense que loolu consommer local maanaam produit yi ngeen di joxe askan wu bari jàpp nañ ni baaxul ceeb bi pour nga utiliser ko c'est tout un problème mieux vaut ñu dem jënd importé bi consommer local ba léegi ça pose problème. oui je pense que euh, am na aspect culturel. fu ñu hmm. fu ñu fu ñu jógee la. ak hmm. euh, parce que même même boo xoolee. Euh, yére yi ñuy sol. Mhm. gars yi préfèrent ñu dem ñu ne bon yére bi euh, France la jógee États-Unis la jógee et cetera. donc mhm. ça demande un travail. Mhm. et je pense que bu ñu jëlee ceeb bi am na liggéey bu ñu defoon de telle sorte que tey moom. problème consommé local ci ceeb bi amatul. mais mais mais loolu des na de euh, communication bi des na de. oui ñu ngi ciy continuer parce que. des na de yooyu loo gis. il faut guñ local carrément. même boutique ah. Euh, produits yi sax bariwul. oui produits parce que loolu ngeen waroon déjà promouvoir. Ah. il faut que je suis tout à fait d'accord avec yow. Mm -hmm. il faut que euh, ñu euh, communication bi. il faut que sénégalais yi ñi nga xam ne ñoo nekk ci transforma transformation bi. ñu gën di transformer loo xam ne lu lu ñii ñi bu ñu ko gisee rek. Mm-hmm. am l'aspect marketing derrière. Mm-hmm. de telle sorte que ñii ñi vraiment. Mm-hmm. Euh, euh, euh, ñu mën a attirer. produits ñu mën a attirer ñi. parce que aussi transformation bi jaay bi. métier la. métier la donc ñuy produit ñoom dañuy produit mais bu ñu produire ba pare ñu nekk ci maillon commercialisation ak transformation bi dañu war a def par exemple emballage bi il faut que mu doon lu rafet il faut que mu am toute toute une communication ci médias pour jaay produit je pense que loolu moo am ci yeneen yeneen réew mi mhm. donc euh, loolu ñu ngi ci continuer di santi santi yàlla yeneen yeneen réalisation yi nga xam ne président de la république def na ko def na ko ci mbéy agriculture mhm. je pense que tey mécanisation de l'agriculture euh, lu lu lu xam seen réalité mhm. parce que moom dafa gëm ni ki mbéy mi mënul continuer di doon ñuy dem béy di jël daba ou bien comme sama mbokk Casamance di jël kajando di béy. Mm-hmm. il faut quand même ñu moderniser agriculture bi te xam naa lu mu fi dugal ci ay tracteur mais motoculteur ak petit matériel vraiment euh, am na solo trop loolu musul am ci réew mi. Mm-hmm. moom moo ko fi andi te loolu moo moo booster production bi moo booster bilan bu positif boobu bu ñu am donc loolu am na solo. Euh, bu ñu jëlee ci horticulture bi parce que aussi. Mhm. ñun euh, euh, la filière la bu gën a am compétitivité bu nga xam ne moom la ñuy gën a exporter même si il faut que ñu dem man je pour que ñu gën di transformer au niveau local. Mhm. parce que loolu mooy gën a joxe valeur ajoutée loolu. ñu ngi ci def ay jéego. Mhm. président bu mu ñëwee yóbbu nañu exportation jusqu'à plus de cent mille tonnes yi nga xam ne euh, euh, mango la euh, banane et cetera et cetera donc loolu ay jéego yoo nga xam ne am nañu ko ci milieu secteur secteur agriculture néew ñu lépp lépp lépp a jaar yoon. loolu waxuñu ko parce que loolu kenn mën parce que ça pose problème li nga wax ni yëpp peut-être c'est vrai mais gis nañ ni Ibrahima fii mbay mi ni mu fi waroon développer développé wu fi. Mm. Euh, fii am na am nañu am nañu espace. am na ay ay ay ndaw am nañu ay ndaw mais gis nañ ni mbay mi nga xamante ni ñu bari euh, wax nañ ni moo mën a suqali réew émergence bi ngeen di woote peut-être tey ji Sénégal bu ñu développé woon mbay mi euh, voilà loolu mooy voie bi nga xamante ni mën nañu yóbbu ci émergence mais da gis tout le temps baykat yi de Ibrahima sonn nañ. tout le temps nga dégg leen ñu jooy bu nawet bi jub see su si si nawet bi même bu nawet bu weesoo nga gis ni ñoom ci précarité totale la ñuy daal di évoluer amuy matériel yu doy en tout cas baykat yi sonn nañ te euh, maanaam euh, gisaguñ carrément euh, ngeen jóg pour développer l'agriculture au Sénégal pour agriculture boobu jëmale ñu ci yoonu yoonu émergence bi nga xamante ni moom ngeen woote le le parti présidentiel. oui euh, je que. wax naa la def nañ jéem jéego. waaw c'est vrai que des na am na lu des mais. Mm. gouvernement bi mu ngi ci au fur mesure. Mm. parce que dans le cadre la. modernisation am ngeen non xam nga xam nga deuxième mandat xam nga lépp loo gis processus la. Mm-hmm. da ngay étape par étap la da ngay régler lii bu ñu ñëwee bu ñu fi egsee matériel agricole lu ñu fi gisoon euh, euh, yokk nañ ko. il fallait que ñu def étape par étape ñu yokk matériel agricole bi. Hmm. yokk production bi léegi il faut que ñu dugg ci ci ci transformation bi aussi euh, euh, euh, mbéy gouvernement rek rek rek rek mënu ko yóbbu ci kanam. Hmm. il faut que aussi ñu accepter ay privé ñëw. jàpp ci non wala wala au lieu que privé yi di ñëw parce que foog ñu ñëw surtout parce que privé yooyu ça pose problème mais maanaam dañu gis ni ndaw Sénégal nanguwuñ bàyyi oui loolu loolu yéen lan ngeen si def parce que am nañ jeunesse boo xam ne mën nañ exploité terre yi mais gis nañ ni terre yooyu pratiquement dañ ko abandonné oui waaw ouais. quel problème exactement man benn jour maa ngi taseeg benn euh, militaire libéré euh, euh, euh militaire koo xam jaar na bàngu mu libéré mu ne pourquoi ñuy seetaan ñi nga xamante ne dañu libéré nga xam souvent mën nañu dem def ay agression wala ci affaire gardiennage la ñuy mujjee ñooñu lan moo tere ñu jël leen yóbbu leen si àll bi day euh, ñu bay développer carrément li nga xamante ni moom mooy agriculture ba ñu sentir ko oui quel la problème. xam nga euh, xam nga tamit euh, côté. jeunesse bi ñu nekkoon ci tool yi di bay ñëpp ñu ngi fii. côté euh, dans les villes. côté jeunesse bi. waa quand même président la république bu mu ñëwee daf fi tegoon ay outils yoo xam ne ñuy accompagner jeunesse bi ñu béy. Mhm. mais xam nga activité bu nekk vocation la man yow Ndeye Maro mënuma ñëw. Mhm. force la ne la demal ci àll bi demal béy. Mhm. man c'est ce que je dis aux jeunes d'abord. c'est vrai que l'état est là da ngay laajte état bi mu jàppale ñu. Hmm. mais boo leen nekkee ci benn. Hmm. par exemple village. Hmm. am suuf yéen na ngeen débuté na ngeen débuté d'abord man mii avant ba ba may dem université bu ma paree bu ñu tëjee damay dellu dëkk ba dem béy. mais léegi loolu boo demee ci village yi amatul. moom laa la wax léegi. waaw donc loolu problème la. il faut ça pose problème la au sein au de la jeunesse ci boppam. Mm, mm. parce que man mënuma euh, gëm ni ki. Mm-hmm. man damay toog sama papa moo dem béy man duma dem béy loolu xalaatuma ko ñun yëpp ñoo doon dem di béy donc il faut que aussi mu am benn organisation état fekk leen foofu. Mm. jàppale ñii ñi ñu dem. mais état taxawul xaar. parce que teg na fi ay outils. Euh, je pense que Prodac ñëpp xam nañ ko. Mhm. quel que soit li ñu li ñu ci mun a wax. Mhm. mais quand même defoon na fi ay jéego jël ay xale ñu liggéey ci loolu loolu c'était une logique. bi nga xam ne dañ ko waroon mais yéen yéen a war a wane le bon exemple parce que j'ai vu euh, suñu kii nu mu tuddati sax Thion Niang. mais moom dafay won exemple maanaam lu patent gis nañ ko dem na euh, très jeune quitté na Sénégal dem États-Unis dem na fa am na fa teraanga mais maintenant il est de retour da koy gis moom mu dugg ci tool yi di bay di def tout à l'action di ko won jeunes yi waaw comme genre xam nga day pousser jeunes yi ñu ne waaw comment se fait-il un Thione dem ak li mu am yëpp il de retour nekk ci tool yi di bay donc loolu mën na pousser yeneen jeunes yi nga xam ne am nañ seen diplôme fu ne sax ñu dem engagé wu bay xam ni bay dara nekk si mooy développer réew comme Thionia exemple boobu muy jox di ko wan jeune. di ko di ko médiatiser di ko def si réseaux sociaux yi nekk si tool yi di bay moom ñu koy gis carrément est-ce que tamit yéen jaru ngeen def ko. oui euh, sensibiliser les, les jeunes bay amul euh, ah, waxuma ça ça ne veut pas dire que sax da ngay dëkk àll bi rek yow yaa war a bay. oui je pense que li wax. voilà am na solo. Mhm. Euh, je suis tout à fait d'accord ak yow. mais aussi loolu tamit. Euh, euh, il faut que ah Coña am na ñu bëri ñu mel ni ña ñu nekk ñu nekk. ci non dama jël exemple. Coña waaw waaw am na ñu bëri. Mhm. donc donc du coup il faut que aussi euh, médias yi. Mhm. ñu mel ni yéen. Mhm. ngeen jàppale aussi ñii ñi gouvernement bi ci loolu. wala yéen yéen a war a xoolaat seen communication. non communication bi moom c'est vrai. am nay actions yu bëri. dans dans ce genre man bu ma jëlee man bu ma par exemple euh, ministère de l' agriculture buñ am nañ benn agence bu ñu ne ANIDA xam ngeen ko. Mhm. defoon na fi benn benn émission télé télé réalité di wane di vraiment pour attirer jeunes yi ñu ñëw ci mbéy mi. Mhm. loolu sa fait partie de la communication. Mhm. donc loolu. am na yeneen agence yu si nekk ay agence yi nga xam ne ci mbirum mbirum jeunesse la ñu nekk ñu ngi ci liggéey ñu ngi ci ñu ngi ci béy seen waar mais communication bi globale il faut aussi euh, ci média yi dafa des dafa des. bon je suis tout à fait d'accord mais mais ñu di wane ñu kii ko surtout ça ça ça pousse les jeunes. mais ñu ngi ci par exemple ñun ministère l'agriculture. Mm-hmm. Euh, bu ñuy def tournée à chaque fois bu ñuy def tournée. ci ci régions yi euh, sites yi ñu war a visiter. Mm-hmm. dañuy dañuy vraiment def l'action ci sites yi nga xam ne ay jeunes ñoo ko yor. Mm-hmm. Euh, y' a la daaw par exemple defoon nañ benn tournée dans le cadre d'un projet toujours projet boobu. Mm-hmm. ANIDA moo ko géré espagnol yi ñoo ñoo ñoo ko financé. Mm-hmm. dañu àndoon def lu tour boo jeunes yi nga xam ne dañu am ay ferme ndaw de mm-hmm. un hectare yoo xam ne euh, euh, projet bi moo leen financé ñu def lu tour wone leen won leen ni ki ñii ay exemple lañu ñëpp jeunes jeunes yi war nañu leen roy pour pour pour vraiment agriculture parce que da ngay gis boo génnee docteur si mberd mi jeunes yi nekk di jaay fii yëpp normalement ñu bari mu ngi leen waroon fekk si tool yi ñuy bay mais soo leen laajee dañ naan mbay mi développé wu bëri na jafe-jafe ainsi de suite àll ba amatul dara ba ñoom ñëpp dañu obligé ñëw à Dakar donc ça pose problème. oui man voilà. man lu may wax ci loolu. Mhm. ci ci ci jeunes yooyu. maana accompagne accompagnement des agriculteurs état bi ni muy est ce que yéen a ngi accompagner réellement. les les les agriculteurs. wax naa la lu. ci euh, euh, gouvernement def accompagner. mais mën ngeen wax dara mais après agriculteur suñu waxee on on voit le contraire. oui xam nga la ñuy dégg. xam nga. Euh, euh la question. Mm question parce que yéen li ngeen di def ñoom dañ ko waroon sentir ba wax ko. mais question boobu. waaw c'est question boo xam ne ku nekk il faut aussi reconnaître cela ku nekk sa position. Mhm. dangay nekk foofu wax parfois ñun dañuy jot ay information mhm. ne fii am na problème mais ñun am nañu ay services ñu nekk ñu nekk ci ci terrain bi. Mhm. parfois quand on fait le recoupement on se rend kenn nit rek moo jóg. jël rajo yi mhm. ne ne peut-être benn syndicat la nekk et cetera peut-être am na lu ko arrangé wul mu wax ci mais bu ñu xoolee bi ci biir ñu gis ni peut-être lu mu wax euh, bu bu nekkee dëgg peut-être autour de cinq pour cent dëgg bi cinq pour cent lu des yëpp dara nekk fi. Mm-hmm. donc dafa doon secteur boo xam ne euh, euh, un secteur très complexe. Mm-hmm. très complexe dont la gestion. Mhm. i faut vraiment aller sur le terrain xool te ñun ci loolu lañ nekk. Mhm. donc maintenant pour ce qui est de la la la la jeunesse. je pense que euh, euh, ñu bëgg a ñu ngi ci ñu am accompagnement. Mhm. Euh, ñu ngi ci sensibilisation bi parce que aussi pour que agriculture bi développé effectivement il faut que jeunes du ay mag ñooy développé agriculture bi mais jeunesse bi mooy développé agriculture bi loolu moo tax président de la république teg fii ay ay outils. comme nu ma ko limee am na am na ay par exemple les fermes naataange ñi nga xam ne agriculture la ñu nekk. Mm-hmm. foo xam ne dañuy installer dañu lay installer. Mm-hmm. benn benn ferme de un hectare jeunes yi surtout jox la jox la euh, forage. jox la euh, système goutte à nga béy donc loolu nag processus la il faut que ni ay euh, petit à petit ba ñu atteindre suñu suñu vraiment suñu objectif. Mm. donc euh, secteur bi dafa doon secteur boo boo xam ne mënuñu régler tout en même temps. kooku ku ko wax ku ne ku ne dañuy régler il faut étape par étape. ku ku xëy rek ne man ñëw naa agriculture damay régler problème yi yëpp. c'est pas possible il faut que ñu dem étape par étape régler point par point au fur et à mesure ba ñu atteindre loolu moo tax. ma ne la euh, nee nga dinañ ci dellu si man je suis persuadé que. waaw il faut que autosuffisance en riz bi kañ la déjà. bon man déjà autosuffisance en man depuis le début dama ne. waaw en riz bi c'est tout un processus. comprend nga. kon mënoo leen jox Sénégalais date. parce que man euh, j'ai toujours di ko joxe dat il faut pas donner une date. Hmm. parce que man sama gëm-gëm mooy lan. euh, euh, autosuffisance en bi mun nga ne par exemple en deux mille deux mille deux mille vingt nañu am autosuffisance en riz. Mhm. mais le vrai problème mooy euh, boo dee atteindre nga tonnage bi il faut nga maintenir tonnage boobu sur une longue durée donc affaire bi moom liggéey la dañuy continuer di liggéey pour que euh, et puis aussi population bi. Mhm. day augmenter par exemple kon yéen assurer ne waa Sénégal peut-être dans combien d'années dinañ am autosuffisance. non on ah, peut donner on peut donner parce que parce que képp kuy liggéey. waaw képp kuy liggéey. ñi ñuy liggéey sérieusement dañuy wax dañuy def lu ñuy wax planification. Mm. da ngay wu ne peut-être man dans tel année dinaa am lii. mais man ce qui important par rapport à ça c'est pas deadline bu ñu joxee mm. parce que deadline boobu souvent c'est des discussions politiques mm. des discussions politiques gars yi dañoo ne la waaye yaa ne woon lii man lu ma bëgg a yi xool nañu xool deadline boobu bu ñu def fan la ñuy fan la ñu jógee fan la ñu mm-hmm. ne woon ak fan la ñu yem fan la ñu fan la ñu yem donc là yan jéego lañ fi def je pense loolu moo gën a am important sinon euh euh, euh, euh, je ne suis pas contre parce que en en en vrai manager da ngay da ngay planifier ne par exemple période sangam lii laa bëgg a am. boo ko atteindre lee nag nga attirer les les les les conclusions mm. euh, jéem a xoolaat sa planification améliorer ko mais auto suffisance euh, en riz que ça soit en riz autosuffisance tamit alimentaire alimentaire loolu moom loolu moom c'est important di jënd feneen gouvernement bu sérieux mm. day liggéey ci loolu mm. pour yéen a ngi liggéey autosuffisance alimentaire ñu ngi ciy liggéey loolu ñu ngi ciy liggéey depuis bu ñu ñëwee 2012 ba léegi ñu ngi ciy liggéey ñu ngi ciy liggéey loolu moo tax ñuy jàppale béykat yi pour que ñu atteindre boobu objectif pour que au moins bu ñu ko atteindre mais mm-hmm. ñu diminuer balance commerciale bi. Mm-hmm. donc loolu moom. mais mais jàppale baykat yooyu lan lan lañ si mën a dégg exactement. non mais chaque année. Euh, euh, euh, gouvernement bi day appuyer baykat yi ci ci ci ci matériel agricole wax naa ko sànq. Mm-hmm. matériel agricole da leen di appuyer ci ci ci semence. da leen di appuyer ci ci comment dirais-je engrais. et cetera bu ñu ñëwee. lu bëri commercialisation bu jotee. est-ce que xam nga ni kii prix commercialisation bi état bi da koy hmm. état bi bu xoolee campagne arachidier état bi da koy subventionné chaque année bu ñu xoolee ba gis parfois prix bi au niveau national day na international day wàcc de telle sorte que vraiment président ne lii mun euh, du ko def parce que bu ko defee producteurs yi ñooy loru léegi damay subventionné prix bi. donc par exemple day ne dama dama koy yóbbu à deux cent dix mun naa nekk par exemple autour de cent francs mu ne noo dam man dama koy yóbbu à deux cent dix cent dix yooyu état moo koy moo koy jël donc état day subventionné euh, euh, production bi subventionné prix bi loolu rek pour encourager producteurs yi ñu gën di béy voilà ñu ngi leen di fàttali yéen a ngi suivre seen émission sociale toute la ville en parle tey jii Ndeye Comba Moreau dalal Ibrahima Mendy nekk directeur de l'analyse de la prévision et des statistiques agricoles ca ministère de l'agriculture et de l'équipement euh, rural gis nga euh, fan yi naka nga gisee coowal Sénégal bëri na affaire litige foncier bari na affaire spoliation des terres souvent état bi mu nekk problème boo xam ni c'est euh, ça revient tout le temps mais actuellement dafa occuper carrément li nga xamante ni moom mooy actualité bi yow déjà naka nga gisee problème litige foncier yi ak euh, spoliation wu terres yi souvent état bi moo jël suñu suuf moo nangu suñu suuf ainsi de suite jaay ñu doole lan ban analyse nga si am. par rapport ak situation boobu. déjà euh, lu ma ci mun a wax. ci boobu problème premièrement je pense que euh, président Macky Sall lépp lu ñuy wax ci moom ci mbirum suuf si mm-hmm. dañ ko tooñ problème yu génn tey yëpp mm-hmm. daf ko hérité c'est vrai que lépp lu ñu wax si moom si affaire suuf bi dañ ko tooñ dañ ko hérité yu bëri yu bëri coow bu am mm-hmm. bu ñu jëlee coow yi ñu jëlee bu ñu jëlee corniche bi par exemple jël feneen ak feneen ak feneen ñëpp ñu amoon kayit ci yooyu période boobu président Macky Sall nekkuloon président comprendre mm-hmm. man bu ma bu ma xoolee bu nañ jëlee ngum corniche bi bu ma jëlee corniche bi. Mm-hmm. xool bu coow bi bu mu bëree. Mm-hmm. après yéen yëpp jot ngeen documents yi. ñan ñoo signé ay décret de ay affaire yooyu. est-ce que foofu Macky Sall bokk na ci Macky Sall bokku ci. ñu signé woon yëpp c'est de de de Senghor ba Abdoulaye Wade. comprendre mhm. donc moom et puis ensuite ñu jox autorisation. Mhm. man bu ma seetuwee dama seetu bi ci biir ma gis ni ki ñu jox ñuy coow ñu bëri ñu nekk di coow ci mbirum corniche bi ñoom seen bopp joxoon nañu ay autorisation ñëw nañu autorisation. de construire de construire signé nañu ko ay nit. donc par exemple booy wax ci dara. Mhm. tamit il faut nga gëm li ngay wax d'abord avant nga ci wax man lu ma bañ mooy ñu politiser affaire bi corniche bi ñun yëpp ñoo ko bëgg. est-ce que euh, Macky Sall la preuve fi Macky amoon na fa dara ba mu delloo ko président Macky Sall bu ñuy accuser ci corniche bi moom dem na ba euh, un pays frère boo xam ne waroon na fa euh, tabax ambassade am Macky Sall retiré autorisation bi moom ci boppam amoon na fa mu mu mu ne léegi man loolu bëggatuma ko jël leen ko mais aussi au est dans un état de droit ku dem ba am est-ce que xam nga ne titre foncier kenn mënu ko attaquer. Mhm. titre foncier moom lu ñu mën a def mooy négociation mais ñu ci politiser di ne non euh, Macky Sall moo joxe corniche bi yëpp Macky moo nekk di joxe suuf si yëpp je pense que loolu faux débat mais mais côté boobu dañuy de euh, Macky Sall day représenter état. non je mun nañu mais mais c'est-à-dire. cest à d'accord tey moo fi nekk loolu moo tax. waaw moom la ñu indexé c'est l'état dafa ne woon première décision bu mu jël. dafa ne nañu arrêté liggéey bi foofu. Mm-hmm. mu saytu affaire bi mais man dama ne Ibrahima ba foofu dara desatu fa. oui mais loolu mënuñu ko mënuñu mënuñu mënuñu ko sëf. Hmm? mënuñu ko mënuñu ne Macky Sall moo signé. ak de côté corniche bi jëm ginnaaw université rallonge dem kii. je mets quiconque je mets quiconque au défi. Hmm. na génn benn décret boo xam ne Macky Sall moo ko signé mu ne moom moo fa déclassé jox ko Sénégalais ou bien gan mu dëkk fa. parce que premier acte bi mooy loolu déclassement bi xam nga ne xam nga ne corniche bi il faut d' abord signer loolu d' abord. maanaam yeneen ñoo ko def ñoo ko def mu nekk nii daf koy hérité. léegi mu ngi saytu mu ngi koy mm-hmm. saytu. mu ngi saytu xool ban solution la fay andi. Mm-hmm. donc loolu nag il faut ñu bàyyi ko mu jël temps pour régler loolu am na ñeneen ñuy wax euh, problème problème réforme foncière bi. Mm-hmm. et cetera et cetera. dafa war a daf ko war a génn dafa war a signer décret pour ñu mettre ko en mais lu may xamal ñi ñi mooy pour man man personnellement la loi de 64 elle n'est pas mauvaise mm. la loi de 1964 elle n'est pas mauvaise loi boobu moom la ñuy appliquer ba léegi mm-hmm. Sénégal musul am xeex fii musul am guerre ci mbirum suuf donc bu bu nee nañu nañu nañu saytu ci loi boobu jéem ko euh, euh, xoolaat pour ñu amaat benn euh, réforme bu bees un président la République mbirum suuf ça langage mais faut que mu xool ko mais affaire ay Guéréo euh, Kinyabour de suite. oui yooyu c' est des c' est c' est, c' est vraiment comme nu ma la ko waxee. waaw c' est des problèmes. situation situation situation bu mu fi bu mu fi. mais d' accord nga ni ñooñu injustice lañ leen teg il faut que situation bu nekk. Mhm. mu teg ko ci taable bi saytu ko il faut d' abord acteurs yi nga xam ne impliqué. Mhm. ñoom tam d' abord ñu discuter. parce que bu dee yow dañu la jox titre foncier foofu. Mm-hmm. même état bi bu ko bëggee jël il faut nga am dédommagement donc man cita cautionné wu ma nag. mais jàppoo nii ñiy wax ni vraiment ñoom instant bi ñu ngi subir benn injustice. oui c'est c'est c'est possible. d'accord nga si waaw wala déet bon souvent aussi damay ne. il faut mm. il faut que d'abord dossier bu nekk bala ñu wax ci ñu xam lan moo nekk ci biir. parce que souvent dañuy dañuy tudd feneen rek gars yëpp ku nekk wax ci di mhm. jóg di wax te peut-être xamuñu lan moo nekk ci biir est-ce que waa ji am na titre foncier waa ji lu mu amee foofu xamuñu ko donc jóg rek di wax donc man loolu lay conseiller ñii ñi parce que sànq docteur wax nga ko nee nga eh, eh, da di jàppale béykat yi appuyer leen pour ñu am lu ñu euh, passé nañ sa autosuffisance en riz autosuffisance alimentaire nga ne mais faaw tamit bu ñu jàppalee baykat yi boobu ba si ba pare faaw privé bi ñëw. waaw mais privé yooyu nag c'est ça le problème. waaw xam nga maanaam dafa mel ni yéen da ngeen dooleel privé yi. non non oo kii bi xaaral la. gis nga maanaam ñooñu dañ da nga leen a rey le contraire non non non voilà. ce n'est maanaam c'est privé yi ça pose problème maa ngi lay jox benn information waaw gis nga c'est l'agriculture mm-hmm. dafa doon secteur boo xam ne bu aléatoire la te xam nga souvent privé buy ñëw. Mhm. buy investir feneen day def ay projection est-ce que lii bu ma dugalee sama xaalis suba damay am dara ñun il deux ans de cela defoon nañu benn étude. Mhm. ce qu'on a trouvé euh, investissement secteur privé dans le secteur agricole bu Sénégal 3 pour cent la. comprendre mhm. donc li ñuy wax li ñuy coow bi yépp pour man euh, il faut que ñu trouver le juste milieu. néew ma privé bi bu ñëwee ñu jox ko suuf si mu dem man sama conviction mooy le Sénégal ne peut pas être un marché foncier mënuñ jël suñu suuf tayle ko jox ko ñi étranger yi et cetera ça ne peut pas être ça ne peut pas être un marché ça ne peut pas être un marché foncier ñun man sama logique sama logique mooy mhm. privé bu ñëw il faut que mu am partenariat gagnant gagnant mhm. état bi veille ci service yi nga xam ne ñoo yor mbirum suuf si ba veiller ci loolu pour que. Euh, lu ma gën a gëm mooy euh, kii bi euh, privé bi lu bu bu exploité à côté na na aménagé ñeneen ñu par ñu moom village bi na leen aménagé jàppale leen ci forage ñoom ñu béyal seen bopp Euh, je suis pas pour que mu def fii benn ferme boo xam ne jël quelques deux gars. Mm. ñu ñëw liggéey foofu. Mm. di leen di fay sale loolu mun na am mais man lu ma gënal mooy bu bu aménager fii peut-être. Euh, euh, quelques hectares euh, je sais pas combien mais na fi aménager loo xam ne mm. population village bu nekk à côté village environnant yi mun nañ béy pour ñu dundal seen bopp mais Ibrahima ñaata yoon la dégg fii ay baykat yu génn di dénoncer nangu nañ suñu suuf jox ko benn privé xamuñ fu ñu jóge amatuñ ñun fu ñu bay nangu nañ suñu suuf sépp amatuñ fu ñu bay loolu loolu mais ki dem ba ci digg àll ba dëkk fa yaakaaru lu dul si bay bay dundee inci de suite mais ngeen ngeen privé yi ñëw rey leen carrément non chaque jour nga dégg problème bu demee noonu ay bay dañu jox privé bi nii moo ñu rey ainsi de suite je pense que ñun waaw euh, président Macky Sall nekkul dans une dynamique d'exproprier suuf si jox ko ay privé ñu moomeel ko au détriment des populations hmm. nee naa la ñu bëri coow bu bëri bu am ti fii tey ñun dañ ko fi fekk fii lañ ko fekk donc man lu ma gëm man personnellement lu ma gëm. mais su ngeen fi fekkee injustice. pour que Ibrahima du ngeen xeex injustice. non mais ñu ngi ci c' est sûr que. mais dañ ko fi fekk rek tax rek non non non c' est sûr que les services. dégage seen responsabilité à chaque fois à chaque. mais état continuité la non dégage état continuité la dégagé wu ñu responsabilité da ngeen dégage seen responsabilité parce que su ngeen ne. dégagé wu ñu responsabilité à chaque fois à chaque fois wala lii c' est c' est du temps de Wade. wala Diouf wala Senghor ça pose problème non non à chaque fois à chaque fois problème suuf bu amee. waaw. les services compétents, le ministère chargé de ce dossier. Mm -hmm. L'affaire de Dengeler, je pense, Abkarim Fofana, déplacé au Dembe Fofu. te je pense que l'État a ligue pour trouver une solution mais liggéey ba ci kañ. pour trouver une solution à ça parce que mënoo leen nekk fii problème bu am rek ngeen ne dañu ko doon. non no no am ne loo xam kenn du leen ko jàngal. xam ngeen ko mooy état continuité la. je suis tout euh, mi ngi fii kenn dootul lijjanti. Wade wala Diouf wala Senghor. d' accord naa le chef de l' état. d' accord naa ci loolu donc su injustice amee moom moo ko war a réparer. d' accord su fekkee population yi ñoom gis nañu actuellement ñu ngi vivre injustice. Euh, le président Sall di woote état de droit moo ko wax. di ko répété à chaque fois si ay discours am. pourquoi pas moom mu rétablir état de droit boobu muy wax la nga xamante ni ñii xañ nañ leen ko ñu jox leen ko. mais mais au lieu que ngeen rétablir euh, justice. ah delloo ñooñu la ñu moom mais da ngeen di sukkandiku rek si. li am président Sall si ñëw ko fi da ko fi fekk dañ ko doon. déglu ma. mais ba kañ lu ma bëgg a wax ci loolu. moom instant bi moom mooy. représente état au Sénégal dama la am am na fu ma jógee ma ne la dañ koy accuser parce que ñu bëri ñu fi jóg de moi à toi tu sais que ñu bëri affaire bu dañ koy jël politiser ko. non pas politique non ma ma ñëw rek. parce que ñii euh, non déglu ma déglu ma ñëw xaar ma may ma tuuti. Mhm. loolu moo tax dans un premier temps ma ne la. Mhm. président Macky Sall dafa hérité wu ci lii. mais new ma parce que daf ko hérité nekku ci di dox pour jàmm am loolu amul wax naa la ne kii fépp fu am problème service les service compétents yi nga xam ne ñooy liggéey ci loolu di ñuy jóg mhm. pour xool ni ñu mënee affaire bi est-ce que jaar na yoon Eh, qu'est-ce que ni ñu ko mënee régler loolu ñu ngi ciy def tout le temps pas pas plus que quelque temps ci Abdou Karim Abdou Abdou Karim foofu mhm. demoon na Dengaleer nemmeeku foofu. xool lan mooy problème waaw Dengaleer tamit. waaw d'accord bon. waaw Dengaleer bi yow. pour que askan wi dañoo gis ni jaay doolale entre un milliardaire Babacar Ngom. fekk ay néew di doole yoo xam ne yaakaaruñ lu dul seen suuf pour dund ñu bëgg ko foqa ci seen loxo jaay leen doole uniquement yow ba naka gisee affaire Ndingler suivre nga actualité bi gis nga sorti bu Babacar Ngom bi lu ñu doon xaar si moom peut-être askan wi lu ñu doon xaar si moom ak moom li mu wax ça fait dañ doon xaar mu sede mais gis nañ ne parewu pour cédé et mu def beneen déclaration bu fa moom fay na ay gendarme des millions pour ñuy garder suuf yooyu kenn bañ fa jege kenn bañ ko laal encore jaay doole bi taxawaat. waaw waaw pour Ndeye Nguer. Euh, président Sall di woote état de droit di xeex injustice. xam nga. waaw état de droit c'est large. pour Ndeye Nguer. waaw Ndeye Nguer damay damay jox sama position. voilà. Ndeye dafa opposer deux acteurs. Mm acteur bi. Babacar Ngom bu Sedima mhm. bi nga xam ne quoi qu'on dise dafa yor ay papier yor titre foncier donc mu ngi ci légalité mhm. mu am beneen partie bi les villageois de Ndengeleer mhm. ñuy revendiquer suuf soosu ñoom dañu am légitimité coutumier donc qu'est-ce qu'il faut faire pour man sama position je pense que il faut une médiation entre ñaar ñooñu. Mm. parce que comme nu ma la ko waxee sànq titre foncier kenn mënu ko attaqué. Mm. bu xasee ba dem ba am titre foncier kenn mënu ko attaqué Babacar Ngom sénégalais la waa Ndengeleer sénégalais nañu donc man bu ma lu lu ma sañ lu ma sañ lu ma bëgg mooy ñu toog def médiation trouver une bonne solution pour que. Euh, ban ban euh, genre médiation ñooñu la ñu bëgg mooy seen suuf pour mën a bay pour mën a dund wax nga ko léegi. waaw léegi baykat yi dañ leen war a jàppale ñoom amuñ lu dul suuf soosu. xam nga. waa ñu gis jéegi jékki rek gis benn borom doole. ñëw rek jaay leen doole carrément. xam nga indi ay këyitam indi titre foncier. xam nga problème bi aussi. waaw. Euh, nekkuma di faral Baba Babacar Ngom de faraluma ko. Hmm. Hmm. mais damay xool logique bi. parce que moom daa am na këyit jógul mu hmm. dem jël fa. dafa am délibération bu mairie Sindia waa Sindia ñoo ko jox loolu donc il faut que déjà euh, discussion boobu moo wax mu am entre mairie Sindia euh, waa Dengaleer ah, dafay indiwaat nangu suuf jox ko borom privé borom doole ak waa hmm. ak ak Babacar hmm. pour ñu xool ensemble ni ñuy régler loolu ensuite man personnellement hmm. on sait que année yële passé c'est vrai que dangay ne non man damay jig ñeneen ma bàyyi président Macky Sall. Mm. mais xam naa ne coow bu gënoon bu gënoon bëri ci suuf période yooyu la amoon te ñooñu ñu bëri. du mm-hmm. ay sénégalais. Mm-hmm. comprendre donc man je fais partie des gens yoo xam ne il faut que quand même. Mm-hmm. ñu protéger. l'entreprise locale. parce que je suis persuadé. mais yow d'accord nga docteur. d'accord ah, ma ñu def médiation ñu def médiation. ñu xool ban solution suuf seen suuf nañu non xam nga man mënuma prédire médiation bi lan lay joxe. Mm-hmm. parce que mun nañu def médiation peut-être mun nañu ne peut-être Babacar Ngom peut-être fii bàyyi lii. Euh, ñu yokkal la fii ou bien et cetera et cetera mun ma xam lan mooy nekk ci biir médiation mais man lu ma bëgg mooy médiation boobu mu am pour que ensemble peut-être paysans yi am fu ñuy béy moom tamit mu continuer mhm. di def lu muy def mhm. parce que aussi lu mu fay am du ko yóbbu feneen fii la koy investir mais yow naka gisee moment bi ñu bari doon xaar euh, Babacar ngoom sedde moom mu wax ba ne euh, dafay fay chaque quinze jours ay gendarme xawma kii ba dix millions je sais pas pour ñu gàddeel ko uniquement euh, foofu pour kenn bañ fa kii yow déclaration boobu noo ko gisee. ñu bari di ko ñaawlu. non xam nga euh, euh, moom moo tax moo xam moom moo communiqué. waaw moom moo wax ci loolu. mais yow loolu jàpp nga ne. c'est normal dans un état de droit. li mu wax noonu noonu. loolu vraiment ko commenter. wax dëgg yàlla mënuma commenter loolu. lu tax. munuma ko commenter parce que moom moo ko wax. yoruma mais yow Babacar Ngom ba pare non non faruma ci Babacar Ngom de. man faruma ci Babacar Ngom damay wax exactement lu xew. damay wax te dama koy wax par rapport moom moo commenté loolu commentaire am la xaw ma lan moo nekk ci dossier bi est-ce que lu mu wax am na. moom moo wax. donc moom moo ko wax donc loolu dafay ñu ne ko baax da ngay séddee. loolu moom dafay fay. loolu million de par par par quinze jours à des gendarmes pour ñu garder ko foofu. moom moo ko wax loolu moom moo ko wax. waaye yow loolu mënoo ko commenter. mënuma commenter ci loolu. pour yow loolu jàpp nga ni c'est normal. la seule chose que je xaw ma normal na ou normalul mais vraiment. Euh, question boobu man je ne peux pas commenter je ne peux pas sur ça munuma munuma ne waru ko def et cetera parce que bon nee na gendarmerie gendarmerie la fay donc. Euh, moo ko am waaw moo ko wax donc euh, euh, je considère que loolu la wax ça n'engage que lui ma arrêté ci loolu mais lu may wax ci surtout secteur secteur privé local. Mhm. local lay wax de parce que pour pour que mbéy bi dem kanam mbéy bi gën a avancé il faut que secteur privé local dugg ci mbéy mi. léegi bu buy buy dugg si. mais tamit dafa am lu mu si war a duggee. il faut waaw loolu laa wax loolu laa wax. il faut que ñu def ay dispositions yoo xam ne. Mhm. ñoo xam ndax bàyyi lañ leen di jox. parce que aussi il faut que privé bu ñëw il faut que mu sécuriser investissement am supposons que yow dañu da nga dem feneen ñu jox la suuf nga investir ay milliards. Mhm. amoo benn papier bu wane ni kii peut-être am nga ci garantie pendant un certain temps de temps temps d'année. Hmm. benn waaye jóge fële ne woon non suuf si man maa ko moom demal. Hmm. fekk nga perte. Hmm. donc loolu tamit il faut que ñu xalaat ci man je plaide pour euh, le privé local pour ñu dugg si ci mbéy mi pour que mbéy mi dem kanam. et que bu ñu bu ñu béyee lu ñu béyee yëpp ñu transformer ko ñu dundee ko fii ci biir Sénégal. Mm -hmm. pas béy exporter ko yëpp. ñun ñu nekk fii di waxaat ay autosuffisance mais ñu béy mu des fii lu ñuy jaay ñu investiraat ko ci dëkk bi euh, euh, vraiment ñu accompagner gouvernement ci développement agriculture bi. Mm-hmm. donc loolu laa amoon pour wax ci boobu euh, fànn. parce que éviter wax ci affaire Babacar parce que non parce que aussi loolu laa la doon wax sànq. Mm-hmm. booy wax ci dossier il faut nga xam exactement lan moo nekk ci biir. Mm-hmm. man dama gis Babacar Ngom mu wax. waaw gis nañ am na ay këyit am na saytuuma dossier boobu ma xam exactement lan moo fi nekk. dégg naa ñeneen ñu doon xam nga ñaar gars yi newoon nañu fii trois cent hectares la amoon. Mm. moom ñëw na nee na deux cent vingt cinq la amoon la am. Mm. donc loolu moo tax ma ne bu ñuy wax ci mbir. il faut exactement ñu maîtriser ko xam exactement lan mooy. ci biir Avagnon mais en tout cas en tout cas. maintenant problème bi globalement ñoom lañu. waa Ndengler ay béykat lañu dañoo nangu seen suuf. jox ko Babacar Ngom nañ leen dellu seen suuf hmm. parce que si la ñuy bay dund. donc euh, loolu. c'est ça Babacar Ngom génne na ay kii am na ci moom lu may wax sànq il faut que mu am médiation man sama lu ma gënal mooy. ay sénégalais c'est hmm. des sénégalais la il faut ñu toog. Hmm. Euh, ak ñi ñëpp ñi nga xam ne. Mhm. bokk nañu ci ci ci dossier boobu ñëpp toog. trouver une solution et je suis persuadé que euh, ils peuvent trouver une solution voilà. pour que ku nekk ci acteurs yi gis boppam ci lu ñu def affaire Cissé Lo loo siy wax waaw affaire Cissé Lo scandale waaw affaire Cissé Lo vraiment mhm. man euh, euh, euh, euh yi lu nekk ci audio yi mhm. parce que xam nga lu tax loolu day ternir image suñu parti Mm-hmm. ternir également institution bi muy euh, euh, président de la république donc waa APR yëpp man personnellement mun ma rafetlu loolu kàddu yooyu te Cicelo euh, responsable bu mag ci APR la la ne woon bokk na ci ñi nga xam ne ñoo ñoo sanc APR comme nu mu ko waxee mu liggéey ci lu am solo donc loolu bu ci génnee bu bu ma gisee bu ma déggee kàddu yooyu puis c'est pas la première fois. Mm-hmm. je pense que ñeneen ab dëgg naa ñeneen ñu ŋàññi Macky Sall di ne ko wéy il s'est débarrassé don don quelqu'un ki nga xam ne bu ko accompagné woon démb mais euh, nañu wax te yàlla tax. Mm-hmm. je pense que paroles yu mel nii peut-être yii ñoo gën a mais am na yu bëri yu ñu fi waxoon am na ñeneen ñu demoon di ne euh, peut-être Macky Sall dafa ragal. Euh, Cicelo mm-hmm. or ku xool président la République Macky Sall. ci coloré rek lay dox ñu neewoon dëmb ak moom ku mel ni mbay Ndiaye ku mel ni Cissé Lo ah ak ñeneen ak ah, ñeneen. ah mais dàq na Moustapha Diakhaté dàq Cissé Lo. wax nga ko sànq Cissé Lo parce que aussi. est-ce bi affaire bi amee waruñu woon parce que bu ñu dem boo demee ba egg euh, affaire bu. demee parce que ñi que ñi dàq Cissé Lo sax war nañoo mën a. dàq Cissé Lo affaire non affaire bi bu demee ba egg feneen je pense que. Euh, c' dafa egg un point. boo xam ne mais est-ce que est-ce que saaga yi moo moo moo tax ngeen dàq Cissé Lo wala li mu wax ci contenu affaire mauvaise gestion ay xaalis yu ñu détourné laal le président laal. fu est-ce que loolu moo tax ñu dàq Cissé Lo loolu tamit man da euh, sawar naa ci wax. parce que dégg naa ñeneen ñu bëri ñuy ne. Cissé Lo dafa def révélation ci audio yi. waaw mais man loolu man bu ma dégluwee audio yi. Mhm. je considère pas ça comme des révélations parce que dama ne. bu le ma tax ma ma ne nii dafa mel ni kii ay ay day day nu ñu ko waxee. menace ay menace la. Mhm. c'est plutôt des menaces que des révélations ah mais mi doon junj de. man foofu laa gis man en tout cas man lu ma déglu. sama appréciation bi ainsi de suite sama appréciation de la. est-ce sama appréciation de la chose loolu la. je pense que Tabal Cissé Cissé Lo bi c'est c'est vraiment c'est l'addition de plusieurs de plusieurs sorties. vraiment ñi nga xam ne yooyu moo tax ñu fu toll fu ñu toll nii bii moom. mais mais avant avant avant saaga yi doon na wax ay wax yoo xam ne ça n'a rien avec des injures mais di wax si gestion bi di wax ni ñu gérer lii ak lii baaxul est-ce que nekkul da ngeen da dem ba xam ni si cela dérange. moo tax non non non ngeen ngeen poussé ko non non ça n'a avec ça parce que hmm. aussi parti dafa am nu muy doxee. je pense que. mais soo gisee lu baax mën nga ne baax na soo gisee loo xam. nga ne baaxul moo tax am na yeneen Moustapha Diakhaté ni ñu ko defee na yeneen. mais xam nga léegi nee nga Cissé Lo injure d' accord mais Moustapha Diakhaté mi ngeen génn kooku musul saaga. non am na lu mu mais lan moo tax ngeen am na lu mu doon wax loo xam ne méngoowul xam nga boo nekkee parce que wax na dëgg rek. Euh, euh, euh, Morone boo nekkee wala wala parti APR. boo nekkee ci groupe boo ah. nekkee ci groupe. waaw yow fii fi nga nekk nii. Mhm. dafa am discipline. Mhm. bi nga xam ne da nga ko war a respecter peut-être li nga war a wax. Mhm. am na fu ñu koy waxee. Mhm. mais doo ko wax ci mbedd mi. waaw xanaa yéen woote wu leen démocratie. ah no mais démocratie bi ci lan. Mhm. tey boo jógoon woote wu leen démocratie. non déglu liberté d'expression am na liberté d'expression. non mais boo nekkee Cissé Lo mën nga ko ko taqal saaga yi ñu ne waa d'accord peut-être mais Moustapha Diakhaté lan ngeen koy taqal. mais ñoom ci ban indécence la def amul Moustapha Diakhaté waaw ci nguur gi la newoon. waaw nguur Macky Sall la newoon. waaw mu am ci ay teranga. waaw temps yooyu musul wax dara de. est-ce que est-ce que bu mu nekkoon au cœur du système. mosoon mhm. nga dégg Moustapha Diakhaté muy génn di wax ci ci ci ci nguur yi. Mhm. lu bon wax ko. qu'est-ce a constaté bu mu demee ba ba ba xaw a perte privilège yooyu la jóg taxaw fële lu ko neex mu wax moom mu Moussa man pour man mu Moustapha Diakhaté mhm. moo génnee boppam ci ci ci ci mbir mi. parce que c'est pas parce que. Mhm. Euh, euh, nekkoon nga fi di di di di am teranga. Mhm. di am lu nekk wax waxoo dara. Mhm. lu nguur gi nguur gi def yaa doon dem ci plateau yi di defaan nguur gi léegi bakkatoo ci dañu lay dañu lay changer rek. nga taxaw nag. ne nguur est façon boobu la mais Moustapha Diakhaté. ah non man de loolu laa gis nuñ ko xamee mooy langage. véridique man de loolu laa gis sentir lay wax. bu boo génnee vaar bi. waaw lu mu sentir lay wax comme ni ngeen boo génnee vaar bi. Moustapha Diakhaté waaw bu mu fi nekkee ba léegi bu mu nekkoon à position positions stratégiques mosoon nga ko dégg muy wax lu bon ci mag Sall moo doon dem ci plateau yi di défendre mag Sall non moom moo doon dem ci plateau yi di défendre mag Sall non ñëpp a ko gis il a toujours défendu pour le président Sall mais moom il s'est battu pour le président Sall ba muy gën a métti au boobu la gën a métti non mais xam nga xeex boobu yëpp c'est-à-dire que là je vais en ah, boobu dara leeru ko ni président euh, Sall dina nekk président xam nga wax jooju waaw wax jooju donc est-ce que nekkul ni yéen démocratie bi ngeen di woote est-ce que am na seen parti mais démocratie boobu ci biir parti bi lañ koy wax non est-ce que yéen wax démocratie nii mais est-ce que xam ngeen luy démocratie bu demoon secrétariat secrétariat fi nga xam ne ñëpp a euh, ñëpp a fay euh, toog di réunion mu wax yooyu foofu ci biir foofu mm-hmm. mais démocratie bi foofu la ñu xool nu ñu koy defee et aussi kon yow mii tey jii docteur Ibrahima Mendy c'est vrai yaa ngi ak le président sàll mais munoo toog xool gis ni voilà ministre bi jox nañ ko lii mais ni mu koy doxalee baaxul mais ñu invité la nga wax ko ça ne veut pas dire que da ngay xeex nguur gi wala. mais gis nga loo xam ne faaw ñu defaraat la démocratie. non xam nga ñoom li ñuy wax c'est différent de yow ngay wax nii wax yi ñu doon wax c'est différent ak lii. Mm. boo demee ba attaquer. institution bi ci boppam. Mm-hmm. ku yor bopp institution bi ci boppam. Mm. xam nga man mos kii kii kii. Euh, maanaam président Sall amul droit def troisième mandat. xam nga man mii xam nga man mii. man mii docteur Ibrahima Mendy ci liggéey bu may liggéey Moustapha Diakhaté bu ma ci waxee dara. bu ma wax mu wax dara ci man c'est c'est normal mu wax ko comme mais loolu moom waxu na ko ci ministre ay yeneen ministre est-ce que dañu ko daax mais président en tant que chef de parti est-ce que bu ñu ko waxee bu ñu ko waxee président il est chef de parti oui chef de parti mais il y a le chef de parti y a am nañ droit wax ak moom non am na volet chef souvent bu ñu koy wax c'est pas dans le cadre de chef de parti c'est pas dans ce cadre-là munuma revenir ci lu ci ci lu bëri li ñuy wax et aussi benn affaire dama bëgg mu leer. waaw parti bi. temps bi sax jeex na. déglu ma parti bi. Mm-hmm. ñoom ñii dañuy ne toujours ñoom ñooy parti bi ñoo defar parti bi. mais mm-hmm. parti bi. du Dakar de parti bi du dakaar ñun ñii ñu nekk ci région yi. dañ ci liggéey Ziguinchor dañ ci liggéey ba bu mu gënee métti nekk Ziguinchor fii fekkee. yow kay nga nekk APR yow. man APR maa ngi fi pratiquement 2009. kenn mun waaw kenn musul kenn munul yëkkati loxoom foofu Ziguinchor ñuy ñuy nëbbatu di liggéey ñeneen nekk jurbel ñeneen nekk Saint-Louis ñeneen nekk feneen di liggéey parti bi du Dakar rek donc ñun ñi yëpp ku nekk am na walla ci parti bi. Mhm. donc ci liggéey ba dem ba dem ci nguur gi nag. Mhm. bu bu kenn ne moo parti bi maa ko defar c'est vrai que peut-être ñoom ñoo gënoon jege. Macky Sall ñoo doon ànd ak Macky Sall di dem fu nekk ñu dem fa mais aussi il faut que ñu respecter ñeneen ñi aussi ñu nekk ci région yi nga xam ne defoon nañu liggéey. Mhm. bu am solo. Mhm. pour yóbbu président Macky Sall ci ci ci ci ci. mais corona bi juste quelques secondes lu tax président Sall démissionné. non seetaan sénégalais non xam nga yooyu. wax carrément xam nga yooyu wax. démb am na ku may kii États-Unis yéen gis naa. feebar bi da ngeen ko sàgganee. te fii ñu ngi def ay ravages xam nga loolu. wax politique président Sall dafa dem ay politiciens ñooy wax loolu. ah bon ku gis sérieusement nañu waxante dëgg. Hmm. ku gis jéego li nga xam ne président Macky Sall lu mu def depuis Covid bi bu mu amee ba fu ñu toll nii. démissionné non instant bii laax dafa démissionné. fan la démissionné. démissionné fan la démissionné. ah mais est ce que avec le virus non déglu ma du moi à toi. teggi lépp est ce que est que te te yow. est ce loo bëggoon mu tëj mu tëj Sénégalais yi seen kër. pendant pendant pendant six mois. temps jeex na ñu bàyyi la nga euh, tàggatoo. oui maa maa ngi lay maa ngi lay remercier. Mhm. Euh, ci invitation bi. Mhm. Euh, remercier ñëpp je pense que bon wax neexul bu dee mhm. wax na ci loo xam ne. waru koon mel noonu c'est mhm. pas de notre faute on est que ay nit la rek euh, di leen ne la prochaine prochainement mhm. bon voilà merci beaucoup yow yaay avocat wu président Sall du ma avocat <laughs> mais damay défendre loo xam ne mhm. euh, euh, président Macky Sall lu mu fi def mm. wax dëgg yàlla. mais xam nga ni sa président dafa démissionné. si corona bi dafa démissionné. début bi il a def na ay efforts. parce que corona bi pandémie. waaw y a partie santé. ak partie économique. est-ce que Sénégal antan na. ñu mhm. toog tëju suñuy nekk bañ a liggéey. Aïcha ñu ngi koy remercier bu baax a baax Ibrahima Mendy nekk directeur de l'analyse de la prévision et des statistiques agricoles ca ministère de l'agriculture et de l'équipement euh, rural nekk tamit responsable politique APR ca Ziguinchor ñu koy remercier bu baax a baax ci disponibilité am di leen remercier yéen suñu auditeur di remercier Mamadou Diaw Diallo ci technique bi Léon Paul Mendy ci réalisation bi Ndeye Koumba Moreau di leen wax samedi prochain 10h jàpp 11h ci beneen émission beneen thème ak euh, beneen invité ngeen mën a suivre émission bi ci suñu chaîne YouTube Rewmi officiel wala ci suñu portail internet www.rewmi.com jaa ngeen jëf.